donte ne sax lambalew ay proposition de loi yoo xam ne Mimi Touré bi nga xam ne dàq nañ ko defoon na ko jagleel ko népotisme ay questions écrites ay questions orales ay question d'actualité ak it ay requêtes yu bari ba ci haute cour de justice waaye ba fii assemblée nationale patt bi la mayee ñu fàttali ni coalition Yewwi Askan Wi déposé woon nañu ci weeru février ba la ñu génn ab requête boo xam ne dañ ko jagleel ay tuuma yoo xam ne dañ koo gàll ci fukki jëwriñ ñu nekk ci gouvernement bu Sénégal ñi nag dañu leen tax a ripp ci rapport bu Cour des comptes ñeel ni ñu yore woon koppari Covid 19 bi fii ci réewum Sénégal ñu fesal ko ci weeru décembre atum 2022 ëllëg nag njiital assemblée nationale di Amadou Mame Diop ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci biiro bi daañu daje ca salle de conférence des présidents gannaaw bu 10 heures jotee yi ñu fas yéene càmbar nag yoon wi nga xam ne moom la ñuy jaar ba daal di taxawal ab code de conduite ngir mën a càmbar question orale question écrite ba ci sax question d'actualité yi nga xam ne jagleel nañu ko gouvernement bu Sénégal. ndaje bi dina tax ñu daal di saytu proposition de loi proposition de résolution ak demande de création de commission d'enquête parlementaire ba ci haute cour de justice bi nga xam ne ay sàkkuteef la. député Guy Marius Sagna bi nga xam ne nag fës na lool ci assemblée nationale waaye itam fës lool ci ay requêtes yoo xam ne jot na ko dugal xamle na ni lii ndam lu yaatu la ci groupe parlementaire bu coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne ba ñu duggee assemblée nationale ba léegi seen yitte du lenn lu may lépp loo xam ne rek yitteel na askan wi ñu mën koo doxal waaye nag njort nañu ne boo mayul mu nekk benn kado boo xam ne dañ cee def tooke maanaam cadeau empoisonné. bu ñu sukkandikoo ci activiste bi nga xam ne dafa bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nee na ci 138 questions u gouvernement yi nga xam ne bind nañu ko 27 dong nañ ci indi ay tontu 82 questions écrites 27 kese itam nañu ci tontu 30 questions orales amul benn tontu boo xam ne def nañ ko ci 26 questions d'actualité amul it benn tontu. trois propositions de résolution ngir ñu daal di taxawal ab commission d'enquête parlementaire deux propositions de résolution ngir ñu mën a traduire jëwriñ yi ci haute cour de justice deux propositions de loi ba fii groupe parlementaire Yewwi Askan Wi moo ko daal di déposé groupe boobee lu tollu ci juróom fukk ak ñeent ci député ñoo ca nekk mu mel ni nag xeex bi njiital assemblée nationale gañe na ko ba noppi ci bureau bu assemblée nationale. li tax mu nekk cadeau empoisonné la mooy ni Macky dafay jaar ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngir gën a neewal doole pouvoir yi nga xam ne assemblée national am na ko ngir woolu gouvernement bu Sénégal bu ko defee day xañ askan wi ñu xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñuy def ak li xew maanaam daal tey doole jëpp dafay gën a nekk ci loxoy Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci jàngat bu Guy Marius Sagna AGT News